waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk Sénégal assan Diouf seen frère ah, di mbokk ci Sénégal di doom ci Sénégal di bañkat ci Sénégal di ñëw ci benn actualité bu am fii Sénégal rek ma war cee wax sama sama xalaat tuuti ah, président Bassirou Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko. man la seen frère Assane Diouf dañu fay toog benn sept ans sept ans di xeex benn combat boo xamante ni naa ne man bi ngeen ni commencé wala man bi may tàmbali di ñappal ñappal boobu yéen egsee gu leen woon sax ci gat sa gat sa ma gëm ne yàlla may nañu ndam ci xeex biñ doon xeex te xeex boobu ñu doon xeex dafa am ay nit yoo xamante ni dañoo taxawoon ci wet ga ne ñoom li ñuy xeex mooy dëgg ñun li ñuy xeex mooy fen ba yàlla may ñu ndam tey fi may commencé nag mooy ci seen slogan ba tey parce que bu ngeen demee ba taxaw ne jub jubal ak jubbanti man ma dolli len ci liggey jub jubal ak jubanti liggey bi day tambalé suñu biir kër yi suñu biir neeg yi jub jubal jubanti bi day tambali ci suñu biir kër yi suñu biir neeg yi degg ngeen kenn ku bokku ci yeen benn doomeram bu nekk fële ci Amérique bu taxaw ne génn na 600 millions de francs un million de dollars pour ay doomu sénégalais dee man bokkoon naa ci ñi taxaw maanaam xeex pour ñu bàyyi ko bokkoon naa ci ñi taxaw xeex pour xam nga fépp fu sénégalais nekk am jàmm dooméram boobu taxaw publiquement ci ay fen wax ne moom bokk na mooy maanaam moom moo doon nit ki nga xamante ni mooy jël alal di ko yónnee pour ñuy rey ay doomu sénégalais pour ñuy taal ay kër di taal ay Auchan di taal ay bitig di taal ay station état bu senegal taxaw ne lii la def ku mel ne Félix Antoine Diome ak général Moussa Fall ñu taxaw ne leen lii ngeen wax dara du ci dëgg xeex ak ñoom man man maay benn doomu aadama boo xamante ni ci tribunal ba amerique New York City pap ale nya seede la man mi new wowon ma jël sama téléphone defal ko témoignage pour ñu bañ ko refoulé doomeram bobu mo tok tay pour xëccio ben place ma taxaw ne len place bi mérito wu ko mu génn traité ma de tous les noms tudde ma golo gi te la topone ba sénégalais yi xam ko ci la amé tour moom doomeram boobu mu nekk sàcc boo xamante ni leeralal na senegal yépp li Assane Diouf di wax ndax dëgg la wala ay fen ku amul liggéey amoo métier xëyoo gontoo amoo bitig booy xëy jaayoo defoo dara ne génne naa un million de dollars financé ko pour benn combat ba pare combat boobu defuloo ci lu dul rey ay doomu sénégalais moo tax dama leen di delloo siwaat rek ci liggéey jub jubal ak jubanti liggéey jub jubal ak jubanti bobu dañ koy tambalé ci suñu buntu kër yi ak suñu biir kër yi président Bassirou Diomaye dooméram bobu nek amerique bu amé sañ-sañu taxaw né da doon na jënd ay cocktail manatof doon na yonné lu tollok 600 millions de francs CFA 1 million de dollars 1 million dollars 1 million de dollars ci ko xamanteni dafa luddul deliverer dul délivrer nokkos ñun ñep ñu xamne day fenn mais nak def na ci xaalis ay lamu wax day fenn parce que deful luddul sacc amerique te même bu dé deug sax bu ñu sacc xamali ma du financement parce que da nga dem sacc ay alalu jaamu kon président Diomaye man Assane Diouf le premier ministre Ousmane ko gëm naa ne Bah jaxate li mu wax ëpp na trop mais gis nañ lu ko gën a ëpp doole pour ñu fekk nit kooku fa mu nekk teg ko ci yoon moo tax libéré leen Bah jaxate nu mu gën a gaawee ngeen topp ki nga xamante ni moom moo ne moo daan joxe njëgu essence ak njëgu cocktail Molotov parce que état continuité la yéen a inauguré BRT bërki démb état continuité la yéen a inauguré yeneen liggéey yi fi mag sàll teg état continuité la dimbali leen sénégalais yi ngir yàlla ngeen boole ñëpp teg leen ci yoon pour senegal mën a jubbantiku Bah Diakhaté waxu fi lu ngeen fi waxul lu ne dégg nañ ko fi

doomeram boobu man maa ko témoigné ba refoulé ko mu jóge Amérique ñëw Sénégal barki Seydina Mohamed tey man maay golo gi doomeram boobu bu ko sénégalais yi xamee yàlla ak Assane Diouf a tax boobu bu ubbee paas tudde ko one million wanak man Assane Diouf maa tax kon doomeram boobu mom ngeen wara a jubanti ci seen liggéey jub jubal ak jubanti, fofu la wara commencer ki doon ray doomu sénégalais ta koku man ma njëkk a taxaw ne leen ram la ay nit top ma saraxuma fu pour ma bayyi ko mu libre bo waxe moom day melne yow opposition bi ngay xéxal nangam nangam ma dem ba delu ginnaw ndax dama am ay colère biir Pastef te mu wóor ma ne doomeram bi bokul ci Pastef ci ex Pastef la bok parce que ñi doon tal ñi doon yónnee ay essence ñi doon yónnee ay cocktail manatof ñi doon jël sen alal pour ñu tal Sénégal ñi doon jël sen alal diko jox xalé yi bañ ci faatu ñoñu ñoy ex Pastef moo tax président Macky Sall bi ñu demee ba dernière minute man ma remercier ko gërëm ko ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram parce que dem na ba xam ne ñii ñooy Pastef mais ñii ñooy ex Pastef mu jubbantiwaat yoonam teg Sénégal ci jàmm delloo ñëpp seeni droit ba pare bàyyi Sénégal mu continuer te bu affaire yi commencé nii même pas deux mois man dama ne woon du ubbi sama làmmiñ bi tant que matul cent jours mooy ñetti weer ak fukki fan mais mënatuma koo muñ parce que defoon naa ne niñ ko waxee lépp day sumuuf lépp day day day nooy di dox sénégalais yi di xëy di bég kenn du jàmbat même opposition bi bu bees beeg ñépp ne ah ñun kat xeexoon nañ ci lii même bu ñu amul jàmm nàngam ak nangam mais lépp loo xamante nii moom la Assane Diouf doon bañ Bougane Gueye Dany di ko bañ xalifa Ababacar sàll di ko bañ Barthélemy Dias di ko bañ bañ ñuy woowee ay traître tey mi ngi commencé di feeñ senegal senegalu lu ñëpp la senegal Sénégal ñépp la ku nekk ak sa xalaat ku nekk ak say ambition senegal du benn réew boo xamante ni ku ne tey la nii wala lee nii la war a demee rek ñu ne la yow jaam nga wala doomeraam nga ku àndul ak ñii ñu ne la jaam nga wala doomeraam nga ku waxul li ñu wax ñu ne jaam nga wala doomeraam nga doomeraam bu mag baa ngi Amérique libéré leen baa jaxate ngeen dem jëli doomeraam bu mag bi doon rey sénégalais yi sàcc bu mag bi man sàcckatu perme bi laajuma leen dara man xam naa sama bopp laa laajuma leen dara ciment beeg oto yeeg taatu oto yeeg huile beeg jaayi gerte caaf sax jombuma ko parce que man liggéey rek laa gëm liggéey rek laa gëm ku ma xam rek xam ne man liggéey rek laa gëm kon mu amee benn doomeram bu taxaw ne moom moo doon jël alalam alalu sàcc di ci rey doomu sénégalais yi kooku ngeen war a lijjanti te bàyyi Bah Diakhaté libéré Bah Diakhaté je suis Bah parce que li ma doon xeex démb ak la ma doon wax démb moom la Bah jaxate wax tey te ñun ñëpp ñoo àndoon ne lii mooy dëgg parce que dañ doon xeex même bu waxee wax bu ëpp libéré Bah Diakhaté merci Sénégal yàlla na leen yàlla defal jàmm